Euh, salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa àddina yéen yi nga xamante ni yéen a faral di seetaan chronique tv point sn euh, tey nag euh, ci seen émission xew-xew ñu ngi fii nga xamante ni moom moo di Médina rond point Sam ñu ñëw ànd ak ñi nga xamante ne ñoo di def marche bi ku ne xam na ni Sénégal li fi xew metti na torop sàccum xale yi nga xamante ne moom la ñuy def suñu doom yi mu nekk loo xamante ni actualité la moom moo waral tey fii ñi ngi ñëw ànd ak daam yi nga xamante ni ñi nga gis ni def seen ay t-shirt yu noir muy góor muy jigéen ba tax na tey euh, seen émission xew-xew fii lañ koy defee actualité la donc ñu laaj ki nga xamante ni euh, ci embouteillage bi euh, mi ngi nii ñu jéem ko laaj xalaatam. salaamaaleykum ça va na nga def soxna si.

merci beaucoup merci beaucoup euh, waaw tata na nga ça va xam gis nañu nga def t-shirt bu noir wax ñu sa xalaat non xalaat man dama gis bi waxuma ko parce que dama koy sama doom yi à chaque fois su ma yi nañ ko nañ ko dafa sama bi a bokk message ngay lancé. non na yaay yëpp parents yëpp muy yaay muy papa muy mag muy ñëpp nañu surveiller parce que leen les merci beaucoup merci Medina euh, fekk fi ki nga xamante ni c'est notre frère Badara lan mooy sa tànk tey. waaw en fait dañuy euh, mettre en sur ben collectif bi fan yi nga dégg ñuy wax xale yi ñuy jàpp di leen sàcc ak di leen rey donc ñu am ben collectif bu ñu jó bu ñu taxawal SOS on tue nos enfants donc ñu bëggoon ñu njëkkoon def première marche euh, le 9 bii ñu defaat ko aussi pour euh, mettre la pression sur l'État parce que l'État doit sécuriser suñu euh, population Nous aussi nous terrain wax ak askan parce que la sécurité est l'affaire de tous ñu wax responsabilité chaîne de responsabilité nous nga xam ne am ci événement bi ak li Sénégalais ñu parce que lu mel nii warul am réew Sénégal et c'est inacceptable donc nous moo waraloon tey ñu nous waxtaan askan wi

mais l'objectif c'est pas de mobiliser des milliers de personnes Nous avons lancer le message nous Ni aussi on va faire avec le nombre et surtout faire passer le message parce que nous mot ëpp solo salon mais lu on ne veut pas que ça se répète dans ce pays c'est pas possible Sénégal ñu jàpp ay xale yu ndaw di leen rey c'est pas possible donc nous ñu bëgg mooy porter le message mettre la pression sur l'état parce que état dafa am un devoir de communiquer un devoir de traquer ces gens là Nous, aussi en tant que parents, nous avons aussi un objectif bu ñu war mais l'essentiel que yu tant que mu on va se mobiliser pour ça ah, merci beaucoup mon frère maa ngi leen di fay bu baax. ñi ngi ànd ak waa Chronique TV point sn euh, tey nag lan moo doon seen ñaxtu tey. suñu ñaxtu moo doon euh, li ñu gis muy dal suñu doom suñu jarbaati suñu sët yi ba ci am na ñoo xamante ni ay mag lañ sax ñu daal di toll foo xamante ni ñun ñemeetuñu ñun en tant que parent di bàyyi suñu doom ñi fo di bàyyi suñu doom ñi ñuy génn. ñu mel ni fi mu ne nii njabootu muus sax lañ gàddu wala njabootu kanaan dañuy ŋànk suñu doom di dem ndax xamuñu fan lañ jëm ñu en nous Nous devons ñaxtu wax li ñu metti bu nous ñu nous devons tamit na nit ñi ko woon mais ñu daal di Nous ñaax tamit parents yi ñu daal Nous góorgóorlu ci seen ay doom ñu daal di gën Nous téye seen doom ndax Nous allons leen ñoom andiwuñu Nous bopp ñun ñoo leen fi andi on est responsable nous devons en prendre soin nous devons a xel ci suñuy doom gën leen di leen baña rek yewu suba teel mu sonn ñun ñëppay sonn ñu jël suñuy dom ne ko demal fawi loolu duy attitude bu responsable kenn nag ku nekk nag doo tu veux pas juger mais nañu gën a farlu ci suñuy doom parce que balaa dara balaa ñuy wax kenn di wax état bi di wax keneen ñun à notre propre niveau nañ seetaat suñu bopp xoolaat suñu bopp seet lu ñu gën a jàppandee jàpp suñu ay doom jàppale xale yi ndax ils ont le droit de vivre ils ont le droit d'avoir du bonheur ils ont le droit de jouer

sa xol jóg na donc ba tey ñi ngi ànd ak euh, waa collectivité waa collectif bi moom la ñu àndal di tey ànd ak euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo di les jàmbaar ñi nga xamante ni aussi ñoom ñooy xeex délégation bi euh, ñi ngi nii marche baa ngi nii commencé na ba tey ci sen émission euh xew-xew. Euh, waaw ñi ngi fi ak ki nga xamanteni mom modi Amina Fall ku ko xool xam ni moom lenn la manam disparition des enfants xalé yi nga xamanteni ñom lañuy sacc di leen def ndaka sudul nonu Amina lan mo doon sa ñaxtu tay ci bisu tey bi. Euh, salaamaaleykum ma ngi leen di nuyu di leen ziar. di rafetlu sen teewaay ci suñu bëss bi en fait tey suñu teewaay li marché bi li ko waral moy dañuy naxarlu Euh, suñu doom yi ñu sàcc ñii ñu rey leen ñii ñu siif leen euh, xam ngeen ne fan yee si ginnaaw la ñu gis suñu benn doom bébé Fallou bi am ñaari at ak juróom benn weer ñu koy naqarlu di ko ñaawlu léegi nag tey dañu génnoon pour wan nit ñi li ñu metti en tant que waajur dëkk ci biir dëkk bi nekk ci biir dëkk bi war a dund ñu war ñu teg yenn yi ñu koy dund moom la ñuy naqarlu tey moo tax ñu génn sol suñu yëre yu ñuul pour naqarlu loolu ak sensibiliser nit ñi ñuy romb wan dañoo war a gën a aar xale yi xam ne ñoom ñooy njabootu ëllëg

am fula lool am jom lool lepp luñ ko xamé manam ci wàllu liggéey euh, honorable lan moy sa téway fi parce que li nga def tay da nga def lu reuy def nga lo xamanteni yombul lan ngay wax ci bisu tay bi dama nek sénégalaise nek citoyenne am naxar euh, ma jitu nak ñew fi pour soutenir sama ay rak ñi nga xamné japp na naa tay ñun ñoo leen wara aar muy xalé yi muy ndaw yi muy tutanki ñu am naxar parce que gis nañu depuis un certain temps

Nous avons 90 protéger lancer un cri de cœur à l'État parce que quand on parle de sécurité c'est l'État qui doit assurer la sécurité des Sénégalais c'est l'État qui doit protéger les enfants c'est l'État qui doit assurer la sérénité de ce pays-là trop c'est trop malgré que je suis parlementaire, je suis de la coalition Benno mais je suis sénégalaise avant tout et je marque mon indignation

waaw ba tey euh, mu nekk seen émission bi nga xamante ni moom moo di xew-xew tey nag xew-xew bi tey lan la marche li nga xamante ni suñu doom yi la ñuy sàcc donc femmes yi nga xamante ni moom lañ fi gis nii tey ñu def seen ay t-shirt yu noir député yaa ngi fi ministre aussi yaa ngi fi ñu def li nga xamante ni maanaam mooy naqarlu méttitlu li nga xamante ni moom moo di euh, sàccum xale yi métti loolu métti ci ñi nga xamante ni moom mooy yaay yi ñi nga xamante ni aussi ñoom ñoo sukk jur ñu koy ñaawlu ku ñëw fii tey xam ni sa yaram daw na gis nañ fi aussi ci biir marche bi ñi nga xamante ne aussi ñoom ñoom ñoo di xale yi marche bi nag dara waralu ko maanaam li ñuy jël suñu doom yi di leen rey di leen toroxal di leen métital ku ne xam na doom dafa métti ci xol ku ne xam na doom dafa neex ci xol ku ne xam na ni yaay ndaxte ëmb sa doom juróom-ñeenti weer benn bis jot mu xaw laa rey. mooy xale innocence nga daal di koy jël daal di koy ne da nga koy da koy rey lu ñaaw la lu metti la euh, ñoom tey dañoo war a tiit dañu war a nekk si ay jafe-jafe dañu war a euh, xam ne ne suñ ko defee lu ne mun na leen si fekk mais tey dafa mel ni ñu ñii ñoo ragal ñu ñii ñooy ñuy parents yi ñun ñun ñoo am ñoo am ñoo am tiitaange loolu nag su amee fi réew dafay doon lu doy waar dañuy wax kii président wax gouvernement bi nañu protéger population yi ñoom ñoo mun a protéger population yi nañ jël matuwaay yu war yu mat si loolu nañu aussi def tout ba euh, ñu fexé ba sensibiliser nit ñi ñu xalé yi ñu wax ak ñom parce que li ni suñu moytuul wax naa ko keroog nee ça devient euh, sous régional phénomène sous régional la suñu moytuul ay nit dinañ dinañ traverser ay frontières pour ñëw daal di daal di jël suñu dom di ko yóbbu parce que ay trafic d'organes lu ne mu ngi fi am mais il faut que gouvernement bi mu wane bopam mu taxaw mu taxaw sénégalais yi mu taxaw population yi parce que li dafa metti il dafa métti exactement xamuñu très franchement. donc c'est un peu maintenant j'espère euh, que manifestation bi dina am lenn population yi Nous pour que nous nous population vraiment parce que les yi sont innocents. Ah, ils n'ont pas appelé à naître ils nañ les protéger war jërëjëf. nga xamante ni euh, moom moo di seen émission xew-xew tey nag ñu ñëwoon fii nga xamante ni moom moo di rond point Médina ñëw fekk fi li nga xamante ni moom moo di marche bi nga xamante ni moom lañ doon def pour métitlu ñi nga xamante ni ñoom la ñuy sàcc seen ay doom di leen rey di leen def naka sudul noonu képp koo xamante ni yor nga sa doom dee koy surveiller xam nga ñi gën a xam li nekk ci doom ñi yàlla jox doom parce que ëmb dafa metti dafa métti nga yor sa benn doom am na ñoo xamante ne benn doom la ñu am ñu jël seen doom def leen naka sudul noonu ñu koy méttitlu mu nekk naqar boo xamante ni kenn mënul comprendre temps yi xool nañ ci boo gisee ci internet bi boo xoolee image yi ak yi nga xamante ne ñu koy def suñu doom yi da ngay en tant que yaay da ngay am loo xamante ni loolu la loolu sa xol day métti trop ba doo sax expliquer donc moom moo waroon tey ñu ñëw fi nga xamante ni moom mooy ci marche bi ñu ànd ak góor ñaa ngi nii jigéen ñaa ngi nii député yaa ngi fi autorité yi ñi ngi fii génn ànd ak ñi nga xamante ni ñooy xeex li nga xamante ni maanaam sàccum xale tey nag ñi ngi nii voilà ñi ngi nii gis ngeen def seen ay t-shirt yu noir macha allah di ko méttit lu góor ngeen gis nañu tey liggéey bi rafet na macha allah ñoo ànd ak yéen euh, def liggéey boo xamante ni bu rafet macha allah donc képp koo xamante ni yaay nga képp koo xamante ni papa nga nañ garder xale yi bu baax ndax réew mi Euh, temps yi métti na torom gërëm ñep sant ñep kontaan ñep di leen jox rendez-vous euh, ci yeneen numéro ngeen and ak Systène Ita merci beaucoup